salaamaaleykum wa rahmatullah man la Thierno Sy délégué général ma central bu kees président département Unacois Jappo bu kees ndaje mi nag li ko waral mooy euh, mbirum foire yi nga xamante ne bi vraiment moo ñu indil problème ci dëkk bi moo tax tey ji ñu tax euh, tey ji ñu daje fi pour waxtaan ak autorités yi ak dëkk bi yëpp waxtaan ak ñoom parce que bi ñu jógee foire yi ak chaque événement bu amee ñu imposé ñu foire yi ci biir dëkk bi taxoon ba le 21 juin bi ñu génnee foire UNACOIS bi amoon coow lu rëy vingt 21 juin ñu bindoon préfet département lettre pour mu mën dajale acteurs yi nga xamante ni ñoo sekk foire yi ak commerçant yi ñu toog ñu waxtaan ci. Euh, préfet aussi bi moo tontu la ma ne dem ñu ngi jëm ci élection élection yi ñu jëm si su ma sañoon ngeen muñ ba élection yi jàll bu ko daa ñu xam ñi gagné ñu convoqué di leen bu ko defee ñu mën a am euh, calendrier boo xam ne képp ku ñëw élec ci ngay tënku. te mu bañ a laal benn événement ñun ma ne ko loolu xalaat la bi élection yi passé aussi le 21 février ma bindaat ko lettre fàttali ko ko fàttali ko pour ñu mën a daje ak commerçant ji ci dëkk bi bind maire de la ville le 21 février boobu même lettre demande ak audience pour yi ñu toog ñu waxtaan ci boobu léegi aussi maire de la ville réserve commerçant yi ñun amuñ ci dara nekk loolu naa ñu toog barki démbo alarba bi passé ji guddi ñu woo ma ñu ne autorisé nañu foire maire maire Ouest aussi autorisé na foire ñu dem fa aussi bi ñu waxee autorisé foire ñu dem fa waxtaan ak moom et kilifa du gaago do mbeddu ñu woo ko laaj ko ñu dem ci waxtaanak moom bi mu ñu demee aussi xamal nañu ne aussi bi mu koy autorisé sax conseil municipal tàgguwu leen bi mu la tàgguwu leen kon autorisé ko prérogative la def na ko ba pare léegi bi ñu ñëwee aussi ñu commerçant yi dellu toog waxtaan nee na liñ ci mën a jàpp mooy ren rek dañuy arrêté droit de commune jusqu'à nouvel ordre keroog comme autorité yi mën a woo commerçant ñu toog ñu waxtaan euh, tant que waxtaan amul droit de commune koy arrêté jusqu'à nouvel ordre. Badou Mbaye la responsable marché Moussante dañu bëgg a xam ni euh, ñun maire yi bees yi fal muy maire yi askan wi ñëwuñu fi ñoom pour yeewi askan wi dañu fi ñëw juste pour ñoom yeewu commerçant yi parce que man maa ngi doog a gis maire bu ñu fal. ay commerçant daje ak yow xamal ni la foire yi ngay def day lor commerçant yi nga ni loolu je m'en fiche bu dee man ngeen dem leen ngeen mars ba ñu jëlee ma fi mais loolu lañ maire bi tontu maire bi man xaw ma nu mu tudd ñun nag ñu mars duñu taal dëkk bi mën nañu ko maire Thiès Ouest ñu koy wax xaw ma jiite ñun duñ du jiite ñun du ñu taal dëkk bi parce que ay responsable lañ mën nañu ko mais duñ ko def parce que moom du responsable su fekkoon responsable du jàkkaarloog ay commercant naan leen dem leen ngeen marche ngir ñu jëlee ma fi buñ ko fi jëlee moom na fexe ña ko fal ñu jëlee ko fi ñoom ña ko fa teg ñuy interpeller aussi waa Yewwi Askan Wi ak leur capitaine Ousmane Sonko xamal ko ni ko lii ñu commencé nii Thiès moom bu fekkente ni nii la naar a demee pour yor réew mi yërëm nañu sénégalais yi yërëm nañu leen torop parce que boo ñëwee fekk saw askan di sonn di bëgg a dee ci ay foire nga ñëw ni je fis fiche de ça lu ma neex laay def signé naa ko tàgguma ci kenn kooku jarul woon sax nga koy fal du ah duñu duñu duñu duñu yàgg ci moom nag parce que kooku xam nañ ni bu doon xëccoo chef de quartier sax du ko gagné coalition rek moo ko mën a fal ñu ngi interpellé nag euh, monsieur le maire de la ville Babacar Diop di interpellé maire Thiès Est di interpellé maire Thiès Nord ñu xam ni lii ñuy def bu ñu ko defee lépp lu xew ci dëkk bi ëllëg nañ xam ne ñoom seen coalition moo ko créé pare nañu pour lépp nag nous sommes réunis aussi aujourd'hui au marché central L'objet aussi de ce point de presse, c'est que vous tous, vous savez que les foires, moi je ne l'appelle pas les foires, je l'appelle les loumans, que les maires de la commune, plus particulièrement la commune Thiès-Ouest, M. Djité, organise pendant les périodes de fête. Nous, commerçants, nous ne sommes pas d'accord d'organiser des loumans pendant cette période, parce que ça empêche notre, notre, notre, notre, notre, notre vente. Nous ne pouvons plus vendre nos marchandises. Pour cela, nous sommes réunis toutes les 11 marchés de Thiès avec des signatures de tous les délégués pour dire que ces maires-là, ces maires, surtout Mamadou Djité, le maire Thiès-Ouest Mamadou Djité, lui, il n'est pas un maire. Il n'est pas, il, il, il, on ne peut pas lui donner un, un, une commune. Et lui, il a dit moi, je m'en fiche, je m'en fiche des commerçants. J'ai signé et je ne me recule pas. nous nag nous sommes nous sommes nous sommes réunis toutes les les marchés de Thiès et nous sommes nous sommes nous sommes prêts à bloquer toute taxe municipale communale telle que les duties les les les taxes euh, les taxes euh, les taxes journalières et les taxes euh, mensualités tous nous l'avons bloqué jusqu'à nouvelle ordre si le maire Pape Babacar Diop le maire de la ville Euh, euh, revenir sur la, sur, sur la situation, il n'a qu'à les commerçants et toutes les trois maires pour qu'on puisse parler de cette situation. Mais vous avez pointé du doigt le maire euh, de la commune ouest, mais les foires, c'était bien avant euh, sa régime Les foires, c'était bien avant, mais vous, les journalistes, vous avez vu notre réaction à chaque fois que la foire est organisée. Notre réaction, c'est de sortir et pointer du doigt aux, aux, aux, aux maires qui sont là. Ça, nous ne les ratons jamais. Chaque fois nous sommes sortis et nous pointons du doigt au maire qui l'a organisé. Pour le moment, nous avons bloqué toute taxe. Nous n'allons pas sortir. Il nous a dit de sortir, de brûler le pneu. Un, un maire comme lui, et dire au commerçant allez-vous sortir, brûler, faites ce que vous voulez. Ça, lui, il n'est pas un maire. Il n'est pas capable. Il de diriger un maire. Nous interpellons aussi Ousmane Sonko et la coalition, à la coalition Yewi Askanwi que nous sommes peur de la, de, de, de la situation de si Ousmane Sonko veut le Sénégal, nous, nu sommes peur des Sénégalais. sa y aura, ça y de la catastrophe. Parce que ces gens-là, ces gens-là ne méritent même pas de diriger un quartier, surtout ils de, euh, de, de diriger des mairies. Je vous remercie.